mbokk yi tey jii le 17 afril di bés bi nga xamante ni moom lañuy fàttaliku giseeb Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké ba ak Serigne Béthio Thioune ci 1946 ñuy ñaanal baax a baax Serigne Béthio yàlla guddal fanam yokk wéram ba mbooleem li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba bëggoo liggéey lislaam ndax sëriñ Béthio bëtt na ay frontière lislaam bépp lay liggéeyal yoonu murid wépp lay liggéeyal ñuy ñaan ni mu nekk jëmmi sëriñ tubaa Cheikh Saliou Mbacké yàlla na sax yàlla na yàgg yàlla wéral ay cëram ci barke Cheikhul Khadim di ko jaajëfal lu baax a baax tey jii day bisu mbégte di bisu bànneex waaye itam di bisu tawféex waaye bisu faj aajo la bisu faj aajo ngir ñaar ña gisante fa ñu gisantee ak nañu gisantee ak la tax ñu gisante ko ku dul ñoom ñaar ca du Sëriñ Tubaa ma tax xamoo lan moo soowoon bis boobee waaye moo tax tey ñuy sant ndax dañu ñoo digle ñuy sant la in sàkkartum la asidanakum su ngeen santee ma dooli leen sëriñ Béthio indi fi dawaamu sukkuri maanaam saxoo sant saa su nekk ca dun xarab bay leen duñ ci fekk kon saxoo sant rek moo am solo tey jii ñu nekk kenn koo xamante ni mën nañoo jàpp ni bëkk néeg mën nañoo jàpp Baay Faal mën nañoo jàpp ndonga mën nañoo jàpp lu jàpp rek sëñ Béthio soo ko nattee ci sëñ Béthio xeeb ko ndax pas-pasam ak pëstéefam ak ak dogom ak bëgg lu baaxam waaye moom wax na léegi nee na amut sëñ Béthio rek am moom soxna Adja Saliou Thioune mii ñu koy ñaan yàlla tawféexal ko ndax kenn ku ne xam na ni bi mu ñëwee ci kër sëñ Béthio léegi mi ngi yokk mi ngi yaatal waaye tam mi ngi leeral diggante sëñ Béthio taalibe yi ba tey jii suñu borom subhanahu wa taala dogal yàlla def sëñ bi toftal ko mbooloo ñoom ñëpp ñuy àndandoo di liggéeyal sëriñ Béthio di liggéeyal sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon suñ ñëwee fii ci bés bi nga xam ni mooy 17 avril nekk fii itam ci Madinatu Salaam di dëkkub jàng bi nga xamante ni. muy dëkkab sëriñ Béthio Thioune mu ganee fi àdduna du ñàkk bu ñëwee itam ñu yëkkati kàddu jox ko moom soxna Adja Saliou Thioune mii soxna si liñ bëggoon rek nga leeral ko mbokk yi muy mbokki àdduna bépp ak site internet yi ñuy bàyyi xel ci àdduna bi yëpp muy sa digganteeg jëmm ji sell ji nga xam moo di sëñ Cheikh Béthio Thioune jaamu sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké seen diggante yaakaar naa ni yow ci pas-pas ak pëstéef ak dogu ak itam bëgg lu baax ak xam fa nga jëm ci sëñ bi yee la ñëpp mën nañ koo jëlee misaal ci yow ndax pas-pas bi nga am ci sa digganteeg sëriñ bi moo la may loo am tey jii sëñ Béthio gàttanul la boppam yiiral la boppam aaral la boppam ci ñu ñi xam nañ ci dara su ko defee say mbokk ngi nii toog di say mbokk yi jege ñaali sa mbokki deret ñoom ñëpp àndandoo di sant sëñ Béthio ci sant gi nga xamante ni bi moom la woo ngi ñu santle ko sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké ñoom itam ñu àndandoo di la sant yow tamit ci loolu nga xamante ni may nga leen ko mi occasion boo xamante ni mën nañoo dund ba làqu te duñu am lii di ngërëmal sëñ Touba lii te yàlla jaale ko ci soxna Adja kon su ko defee jox la kàddu gi nga yëkkati kàddu rek bismillah jërëjëfati sëriñ Béthio jërëjëfaat sëriñ Béthio jërëjëfati sëriñ Béthio sëriñ Béthio jaamu sëriñ Saliou yàlla na fi yàgg lool te Serigne Béthio mi ñu doyloo tey ak ëllëg yàlla na fi yàgg lool te gën a wér maa ngi siyaare Serigne Béthio di ko ñaan ñu yàgg fi lool te wér di jiite samay kàddu di ko tuubal ci lu ma xam ak lu ma xam di yeesalaat sama njëbbal ci moom di jëbbalaat sama bopp àdduna ak àllaaxira mboolem seen lu tax ci man ci barkeem waaw maa ngi sant bu baax di bég lool it ci sa question bi